ci mandat bi tam 22h euh, la ñu wax 22 jot na ba tegal euh, avocat yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo nekkoon li nga xam ne mooy les interlocuteurs nañu toog patiente rek ndax nag li wéyoon yëpp je pense que ëpp euh, li li lii ëppoon yëpp je pense que wéy na mhm. depuis ci suba léegi naaj bi tàng ba kër gi xaw a ba kër gi seet mu mujjee di lépp euh, voilà dafay xaw a euh, doy waar mhm. en tout nañu gën di patiente rek xaar mbir yi naka la demee fii nga xam ne mooy ci cour suprême bu Dakar li ci des moom bareetul ndax itam ni ma ko waxee rek tous les yeux sont vers suprême bu Dakar waaye itam ñi nga xam ne ñooy toog di seetaan ak a déglu li ñuy bëgg a dégg rek moom mooy li tukkee fii bu ko defee ñu xam euh, Cheikh a ngi nii dem na uti kaay baax na nga xam ne moom nga uti woon bu ko defee itam ñu partagé ko ak ñi nga xam ne ñoo ñuy euh, ñoo ñooy seetaan euh, <laughs> grand yi nii moom itam uti woon na ba ñëwaat. waaw kaay la nga uti woon nag nga partagé ko ak ñun bon xanaa di di leen wax ni ñu taaxil lu tuuti ndax 22h bu ñu wax jot na ba dépassé sax mhm. fu mu toll ni nag am nañu ay éco waaye nag dañuy bàyyi yëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, juge yi euh, juge bi ñëw bu prononcé ba pare ñi nga xam ne ñooy avocat yi ñu daal di ñuy defal benn résumé bu ndaw waaye ambiance bi nekk ci salle bi am nañ ko ak ko kan itam fu ñu yaakaar ni dëgg bi fa lay féete am nañ ko mais pour le moment nag ñu euh, rester prudent parce que xam nañu ni comme li ma leen koy waxee rek yoon dafa sew. Mhm. donc ñu moytu bu baax a baax te ki nga xam ne affaire am moo ñu fi indi moom euh, du delloo avance. Euh, ay diffamation <laughs> diffamation du ko <laughs> du delloo ci ginnaaw nag nañ bàyyi xel bu baax a baax. <laughs> surtout loolu man wax surtout loolu parce que tey euh, toll nañ ci moment boo xamante ni peut-être diffamation ci boobam nag alburax bu fekkee am na lu ñu war a réglé waat. déformation bu fekkee am na lu ñu war a réformer waat loolu la ñu war a parce que tellement yomb na compliqué na ci kenn. on nous signale yi euh, dugagun dugagun accès gun ci salle bi euh, fi mu ne euh, toftal na 26 minutes mais ba tey ñoom accès guñu en tout cas xam naa ni nag ils prennent au sérieux cette affaire parce que 22h la mais ba tey ñi ngi wéy di des di concerté wu pour mën a jox li nga xam ne moo di seen délibéré. ak lu ci mën ko doon wax c'est pas parce que euh, buñ ko daanee tey ji nii dina toog lu mat cinq ans du bokk benn yoon ci élection ci élection cinq ans du bokk ci élection donc loolu tam dadi li nga xam ne euh, dañ koy jël en cest à du du légèreté daal parce que xam nañu nii ak nu mënta demee Ousmane Sonko tey jii nii moom mooy l'opposant bi nga xam ne moo gën a sonal nguur gi waaye moom moo nekk leader. ci opposition boobu noonu moo tax lépp li nga xam ne tàqee na ci Ousmane Sonko gars yi dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax non seulement dañuy xool ndax du nekk li nga xam ne mooy précédent dangereux par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy atte fi parce que ñu ngi leen di maa ngi doon signaler ni li nga xam ne euh, mooy cas d'école yu bëri maanaam juge yi joxe li nga xam ne moom mooy euh, seen verdict ne nañ appliqué direction defu ko loolu cas d'école la donc euh, ñu xool euh, li nga xam ne moom mooy parce que xam nañu ni la plupart du temps lii di dossier politique maanaam dossier homme politique da ci rax ay politique ay galgal yu sew surtout ci li nga xam ne bu ñu demee ba gis ni élection présidentielle jege na wala yeneen élection yi jege na xam nga nii bu fekkoon euh, amoon na avant des élections xëy na retard bi nga xam ne am nañ ko ci diggante bi du duñ ko mën a am waaye comme élection présidentielle bi bokk na ci rek galgal yi dinañ ci bëri te ku gis euh, li nga xam ne mooy taxawaay bi Ousmane Sonko amoon par rapport ak li nga xam ne mooy gouvernement bi fi nekk nga xam ne dossier Ousmane Sonko ak gouvernement bi du yomb parce que dañu jàppoon sax nii li nga xam ne moo tax mu euh, ñu bëre affaire bi jaaxal leen mooy au début affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko lañ doon wax ñu gis ni bu ñu defee li nga xam ne moom bu ñu leen attee ba daan Ousmane Sonko ci li nga xam ne moom mooy euh, corruption à la jeunesse gis nañu ni affaire euh, sabasi fay nag kan moo porté kan moo indi recours bi c' est l' agent judiciaire de l' uh-huh. donc l' agent de l' état ñun dañuy jàpp ni kooku ci état bi la bokk. donc l' affaire Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy euh, Adji Raby Sarr ñëw na nekk. Euh, affaire diggante état bi ak Ousmane Sonko bu dee agent judiciaire de l' état moom mooy défendre l' du Sénégal moom moo indi recours bi fii nii mu doon euh, diggante Ousmane Sonko ak euh, état bi loolu moo jaaxal ñu bëri ba li nga xam ne mooy première verdict bi gis nañu nu mu demee deuxième bi tam gis nañu atte bi nu mu demee ba tey décision boobu noonu mënuñu ko exécuter parce que premier jugement bi ki nga xam ne mooy ayib daw na ci ginnaaw li nga xam ne moom mooy euh, fiche de parrainage am sonn ñu ne ko dañoo dugal dossier bi en recours na nga bàyyi ba recours bi jeex wala ñun ñu am li nga xam mooy notification. te Sabasy Faye li mu génnee ci notification mooy nañ ko delloo immédiatement deuxième atte bi ki nga xam ne mooy le juge Thior loolu la wax nañ ko delloo immédiatement donc ba tey gis nañu le lendemain euh, ki nga xam ne bi euh, mandataire Ousmane Sonko di Mouhamed Ayib dafee demaat fi nga xam ne moom mooy. Euh, direction générale des élections gis nañu ni réponse bi mu amoon ci premier passage am moom la amaat donc amuñu notification kenn signifié wu ñi ni lañ leen war a bind euh, lañ leen war a jox fiche de parrainage wala ñu ne duñ jox fiche de parrainage ki nga xam ne turam nekkul ci euh, li nga xam ne mooy liste électorale bi donc kan moo war a bind loolu te décision bi ñuy jëloon décision pour génne Ousmane Sonko cité immédiate ñu ne génnee nañ turam ci li nga xam ne mooy fiche électorale bi. ñun amuñu ci accès mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ci am accès maanaam wax nañu ni génnee nañ ko ci ñoom ñoo def déclaration de Ousmane Sonko turam nekkatul ci fiche de parrainage donc loolu tam euh, yaakaar naa ni kaala bi nga xam ne war nañ ci bàyyi xel bu ñu waxee ni décision bi nañ ko jël. Euh, bu dee arrangé wul beneen côté bi ñu fësal ko ñu def ko automatiquement bu dee dem na ba li nga xam ne arrangé na leen ñu daal di jël ay temps pour mu mën a indi affaire politique parce que li nga xam ne moom mooy euh, dossier Mame Mbaye Niang Sonko si ñu bëre si ay commentaires yi nga xam ne dañ koy dégg surtout ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, seen xam-xam màcc na ci wàllum yoon dañuy wax ni gisuñu gaawaay bu dossier bi gaaw gisuñu ko ci benn dossier dem nañu ba di joxe exemple dossier ki nga xam ne moom mooy euh, euh, suñu patron bi di euh, ki nga xam ne mooy avenir communication digganteem ak ki nga xam ne moom mooy le juge taliko gis nañu ñoom tam Madiambal Diagne ak le juge Téliko gis nañu dossier bi presque xaw ma ndax deux ans la xaw ma trois ans dossier wala un an ba tey dossier bi mu ngi mu ngi mu ngi en cours amul fenn fi nga xam ne. mu jeexal mënuñu jox euh, kenn si ñoom ñaari dëgg waaye nag euh, signalé naa fi ni pro euh, affaire diffamation daanul am dayoo bi parce que ki nga xam ne moom mooy bu ma jëlee exemple ci ki nga xam ne moom mooy Dambodj Dambodj tey jii nii mu ngi am procès ak ki nga xam ne moom mooy si Sitor ndu en même temps ak Madiambal Diagne parce que ñoom. même même doguma la capitaine Touré. voilà ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Yérim voilà ci ci ci ci citation hmm. loolu yëpp ci citation la ci affaire de diffamation parce que déjà ñooñu seen kaay mun naa wax ni am na Dame keroog demoon na wuyu si ñaari convocation yi noonu waaye nag euh, sénégalais yu bëri xamuñu ko après bi mu génnee la commencé di expliquer lu tukkee ci li nga xam ne moom mooy euh, projet boobu nee na ki nga xam ne moom mooy euh, Mambay ki nga xam ne moom mooy Sitor Ndour ak Madiambal Diagne ñu ne dañ ko duural ci li nga xam ne moom moo fi amoon ci événement yi donc euh, gis nañu ni à chaque fois ni dossier homme politique bu demee ba dugg ci li nga xam ne moom mooy justice euh, bu amul lenteur day gën a gaaw donc gaawaay bi nag ndax politique moo ci lalu parce que ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dafa war a dem ci élection présidentielle te élection présidentielle bi jege na ndax loolu moo tax ñu euh, bëgg a dossi bi balaa ñuy dem ci élection yi loolu beneen question la bu fekkee euh, li nga xam ne moom mooy dossier bi dañ ko dañ ko dañ ciy basé wu parce que xam nañu ni à deux fois euh, ñu ne li nga xam ne moom mooy euh, daan par contumace bi nga xam ne mu ñu ne loolu moo loolu lañ doon toppee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñu ne contumace bi niinal nañ ko te contumace bi bu ñu ko niinale mooy chance Ousmane Sonko. bi nga xam ne euh, mun nañ jàpp ni contumace bi génnee na ko ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle bu ñu nee niinal nañu li nga xam ne moom mooy euh, contumace bi donc Ousmane Sonko participation ba tey mu ngi ci euh, élection présidentielle. Mhm. donc comme mu ngi kaso ba tey waaye amaguñu len li nga xam ne daan nañ ko. donc mun nañ espérer ni bu fekkee ni Ousmane Sonko comme niñ ko waxee sànq li nga xam ne mooy avenir politique am ça ci journée bu tey. Mhm. le 4 nii. journée bu tey la avenir voilà le 4 janvier 4 janvier di anniversaire li nga xam ne mooy seen parti politique sax mhm. donc avenir am tey lañ koy fixé mhm. d'accord euh, li nga xam ne moom mooy rappel bi mu def euh, fois dafay baax ñu def rappel parce que am na ñoo xam ne dañuy soog a dabu live bi euh, donc ñu leen di fàttali rek ni juge bi dafa waroon a délibéré depuis